What up, guys? What's up, everybody? So I'm a guy. <laughs> Before going faster, allow me to introduce again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> and they call my Papa J, you know what I'm saying? Ibu Jai, <laughs> Ibu Rekor Del, dalam medikasi berkem. Ibrahim Ndao, Bon, so my guy, j'ai le merci, moi, il m'a affaire au troisième mandat, quoi, tu vois. Pas plus tard qu'hier, moi, il s'est fait déconnecter, ou gis bien un gars, un bout Rahman Ndiaye am na commencement tur bi quoi mais commencement tur bi dafa seetlu quoi mais Rahman Ndiaye le gars il est entouré de ces militants parasites maanaam waxi troisième mandat kay moom kenn du ko waxati yoon may na ko përër përër mais man ce qui me fait le plus mal ce qui me fait le plus mal man ma la coono mooy yow ñu la fal deuxième mandat tu parviens pas à satisfaire les besoins des sénégalais sénégalais yi tey la ñu gën a sonn mais balaa ngay wax ci suba mais waxal ci tey benn bu teew mu gën fukk yu ñëwagul yéen ñu ngi leen di fal. xool ngeen wax préoccupé aussi bien-être sénégalais yi maanaam tey paludisme bii rey parce que booy bu ñu feebaree ci palu amuñu lu ñu fajoo ay précipice la ñuy xas sinfil parce que bouteille bi 10 la crédit te ils n'ont pas de boulot lekkuñu naanuñu ñu bëri palu mi ngi rey palu lu muy rey sida du ko rey et ngeen jéem a xool comment remédier à ces solutions yéen vous projet vous projeter dans le futur doo si loo xam ne tey ji pour troisième mandat boo parce que mënuñu dem si dentiste yi bu fa demee rek maanaam seen bët yi moo enflé parce que boo demee ci cabinet dentaire yi 5000 boo boo consultation rek garab bi ñu bind la ordonnance presque 12000 15000 wekk bi 10000 soo amul 30000 doo wekk sa bëñ waaw booy bi nga xam ne tey day am problème mu lekk añ issin fil ah nu muy amee 30000 wekkee bëñam nu muy mujjee tëddaale noonu ñaakaan logal ngooñ ak issin fil def ci lii tuxal cigarette gars yi classe yi salle de classe yi boy ay saa la ñuy doon ci biir classe saa la ñuy doon ci biir classe te loolu preuve bi li koy wane mooy tey bi président France bi ñëwee la petite vous a fait mentir devant devant devant ton kii euh, comment dire devant ton confrère mu ne ko depuis quand vous êtes passé à 25 mu ne ko depuis hier j'avais honte classe yi day fees del sans élève yi nangu suivre le prof bi jàngal ñu leen di bëmax rek di wax yéen waxul leen ci loolu 2024 ngeen di wax non man man damaa man ban Sénégal la ñu ne ay boy yoo xam ne tey jii des bombes retardement saa boo ubbee gis crime waxu leen ci sécurité gars yi waxu leen sécurité sénégalais yi maire yi xam ne bu ñu yeewoo fajar pour jaayi jën ñu ne agresseurs yu ñàkk fayda yi nga xamante ji waroon agressé ay ay ay ay Birima wala ay yi ay jën lañuy jaay pour dundal seen doom yi leen rey isaan fi kon ngeen sécuriser ghetto bi waxu leen ci loolu 2024 ngeen wax mais maanaam yéen ban genre nit ngeen yéen faluñu leen pour ngeen nekk fi défendre seen intérêt yéen kese xalaat leen sénégalais yi ñu ngi bëgg a dee booy liggéey ils n'ont pas de fi ker gi fekk fa leen naaj bi fekk Sénégal amatul trois repas tuuti ñooy lekk borom alal yi dañuy daw du ñu mën a ñëw parce seen kër dañu koy assiégé Pape Diop jabaram dàq na fi ay manjaang lu ne parce que amatul vie privée lu ko waral mooy leen ñàkk gi waa àll bi lu ñu toog ñu toog foofu noonu ñëw leen yéen ñëpp Dakar ngeen ñëw parce seen xaalis la ñu sàcc seen i milliards la ñu sàcc sen avenir lañu ñu bu len nangul tok ci Allah bi naa tolen ci Allah bay ñom ken balawul sen domi sen domi ñu nek ci réseaux sociaux yi di snap di yor ay lias de ay domi Allah ngeen jaay di yor ay millions yo xam tay ji c'est ay signature pétrole lu jogé di len ko xoy di len ko di len agresser ñew len fi Dakar ngeen tok kene ëppaloo len fi Sénégal Sénégal lu ñub la ka daan yëpp ben ben image benn ki mo sene parce que yéen nag neexul ba neexul mi yéen ngeen yapp Sénégalais da ngeen yapp Sénégalais yeen ñu fal len tay ji pour ngeen wax ci ñu li teew tay ji ni ngi def na ay 2024 mëna ñu am élection mi daal lu rek mëna a intéressé ah def def Sénégalais ay nak ren di ñu jaay suñu mbukulaan jaay suñu der ah jaay suñuy béjjën mu des ay yax ngeen bëgg a jël def ko kii artisanal ñu ne ay yax rek lañu dese yéen a ñàkk yërmande parce que raykatu nit nag du question ki jël paaka rek fekk nit mu taxaw nga jam ka mu dee non non raykatu nit mooy ku fekk lu 14 millions wala 15 millions d'habitants war a bokk isaan fi yow nga jël ko nan koy lekk yow kase loolu mooy raykatu nit non ne le président n'a pas droit au troisième euh, à un mu dégome la daaxal boo ne yoon mel na ko comme ay kooku noonu tax man Ndiaye sa tëmbisil bi doon ko démb naan ay kii nii nii ñu applaudir la non Macky Sall Macky Sall vraiment man Macky Sall mii noo xàmmeetuma ko quoi Macky Sall nit ñi sonn nañu les suuf souffrent Sénégalais yi ñu ngi souffrir ñaan ngir ne tulleeg male jéeg yi nekk ci mbedd mi di cagatu caga clandestin yi maire di la koj may ma lii sama kër bàyyi ma fa lii lii nii ñi di jaay siddo ñu jaay buntu séchers yi boo fa demee boy 4 heures du matin lañuy dem pour ñu jël leen duñ leen jël parce que ñi jël jël leen bu ba pare te lolu am fep yéen ngeen nek ben minuscule vous êtes eh, insensible à ça lén rek mo intéressé bu ñu fee nga suñu suñu troisième mandat troisième mandat wallahi al azim c'est nga troisième gis nga boo leen bàyyiwul li ngay def ni li ngay di togg ni parce que nañ ne géwal ni ne naan géwal bu bu répé ci xalé lu mu lu mu lu mu géñ xeeb ko yéen ngeen tollu ni yeen xamugulen sénégalais sa sax dem rek di japp sénégalais yi jappelu ñu seen xuusmaa ñap seen mën lu leen ngeen def mais yéen ñu fal pour ngeen mëna ñëw wax suñu problème yi récurrent yi tayew ni nga naan ay eh, non leen schéma boo leen teg makki Macky Avali boo leen teg pour jëm mëna fal waat faluwaat yeen yeen yeen yeen yeen yéen yéen a ñàkk a rasu yéen yéen a rasu di pousser Macky Sall pour 3e mandat pour lan parce que am ngeen ben poste dóorkat boo xam ne tey jii nga naan Macky bu fi jógee bu fi keneen ñëwee tay ji suñu yoy day yaax yeen seen interpersonnel au détriment du collectif té te yi wër di seytane lan Sénégal de mom ci ndaw ndaw yi bëggu ñu liggéey Sénégal de mom du mësa baax mais Sénégal ñuy baax ak li ni classe tax man njaay gi El Hadj Diouf ak Birima Sénégal nu muy baaxee ndax genre xeet yi nii non yi boo ko xool sa xol day jeex barke du dëgg quoi yéen ñu fal leen pour ngeen ngeen faj ñu suñu année yi nii nii ci deuxième mandat bi ngeen wax problème sénégalais yi mais loolu non non non non ngeen def non non c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi ay des militaires qui sont mal payés dëgg ci mine sa tànk dagg sa jabar daw sa indemnité nga si daw ay di ay dix mois bu ñu leen parrainé benn kii grand théâtre ah wala Marième Faye Diallo jël suñu xaalis Ismaïla Fil faj si faj si ñaari six mille mbër mu faj si benn mbër ñaan moo koy mi ngi dimbali Sénégal lay dimbali Sénégal xaalis suñu xaalis lay dimbali waa Sénégal yërëm leen jaam sono nañ Sénégal lay sono nañ tam xarit bi da koy wane taaja boon bi huit heures mu jeex parce que bu njëkkoon boo nekkee booy boo daan taaja boon da ngay bi dugg jël saako ceeb tibbal la léegi kër yi jënd moo taaja boon bi di réewul sax faf nit ñi sonn amuñu liggéey maire yi daw ba dee ñi feebar mënuñoo faju dëkk boo xam ne couverture maladie universelle nit nit baadoola boo xam ne tey il a peine à joindre les deux bouts mu war a def dialyse mais état bi da ko war a jël par force ñu koy faj parce que boo jëlee feebar boobu du feebar buy dal ay milliers de personnes ay dialyse ay tumeur état bi moo la war a jël par force ñu faj la ah ay ay ay mais mais vraie anarchie yéen problème yooyu yëpp doon ko jéem a réglé réglé leen santé réglé leen éducation isin bi ndox mu bon bi ñu naan boo ko teg kenn xamul calcaire la kenn réeral leen dara ngeen toog ne di vous foutez des sénégalais bu ñuy waxee nga naan non troisième mandat ba si droit ñun yeggaguñu foofu quoi Baye Fall et troisième mandat ñu fal leen fu ne nii na fu mu jaar ay nit ñu damm rek a fay ne ndax leen booy booy ay université buyu baax yoo xam ne du nekk fii université Anta Diop di fanaan par dix dans une chambre booy du ñu fi nekk problème yooyu ñi fi gàññi ngeen ne fi di wax ay troisième mandat quoi mais jàppe Sénégalais ma heart is bleeding quoi lu muy niróol lu muy muy niróol lu leen neex ngeen def ah léegi président léegi koo leen tax président am na si ma mm, troisième mandat bu nekkee APR lu mu xalaat ko waaye loolu daal yegguñ ci yegguñ ci parce que bu ko xeergal ñu dax ga troisième mandat bi c'est un sujet tabou loolu da mooy jàkkaarloo iblis nag mu ne bu fekkee tarif kenn du fi tarifaati fa <laughs> ne Macky Sall vraiment sama gars yi mooy loolu quoi ay jigalu quoi sama xol mooy dem quoi amul sa sujet mooy dem ñu quoi ndax sama xol moo bon quoi ndax tellement su ma gisee yenn soxor yi yenn mbon yi nit ñi am seen kaw askan moo may jaaxal quoi bëggee sama gars ah. yi waaw